une de ses présentation yi mu doon def à travers ses propos mu dérapé dérapage bu doy waar peut-être que xëy na objectif bi jug li mu ci woon lool mais aussi man li ma si ñëwee euh, pas sur la personne mais en fait euh, euh, dafay am solo parfois ñu bàyyi xel bu baax sunu suñu réalité socioculturelle xam nga tey li mu def nii c'est c'est c'est très grave malgré qu'il s'est excusé waaye xëy na Sénégal nañ ko jéggal mais il a lynché également sur les réseaux sociaux mooy que tey jii li nga xam te moom moo di <clears throat> wàllum nég négro négro wàllum négritude wàllum nit ku ñuul man je pense que ne yu mel nii sax dañ ko war di maytundu ko parce que mun ñu comprendre tubaab yi est-ce que dox duñ am occasion gën ñoo xas bu dee ñun ay golo la ñu tuddee suñu bopp te am fi ay nit ñu baax ay mag ñu baax ay kilifa yu tedd tey Demba Ba il s'est défendu il s'est défendu pour que der bu ñuul am gëddam ba il avait convaincu mu convaincre ay ay coéquipiers am ba ñu génn rejoindre ko dans les vestiaires ba ce match a été rejoué finalement ils ont ils avaient gagné 3 buts à 0 donc pour pour vous tout simplement que ni pour man loolu gàcc la waruñ ko def mais dina jàngale aussi que ëllëg képp kuy toog ngay xam li ngay wax mais man je je ne m'intéresse pas mais ça donne également leçon aux chefs d'entreprise de presse parce que souvent dans les organes de presse on recrute des gens yoo xamante ni moo xam jigéen dañu am teint rafet jekk nga teg leen ci kanamu écran bi seen bopp yi koppi la kooku xam nga kooku kooku kopp la xaw ma nu ñu koy waxeeti si euh, gerte yi nga xam ne amul dara te day mag boo ko tojee dara la amul dara tous ñu bëri dañ leen jël teg leen ci télé yi ndax la ñu jekkee te seen bopp yi nekku ci dégg nañ fi dérapage bu nekk te Sénégal dafa am ay réalité socioculturelle am na yenn terme yooyu wax ça touche une communauté te moom li mu def nii sax dafa toucher tout tout euh, quoi dire euh, toute la toute l'Afrique noire maintenant nag dafay am sorte yoo xam ne ça touche une communauté te loolu réew bu tàkk nañ yàlla musal moo ko taal waasoo xeetoo nangam boo gisee yéen réew yi Mali am problème boo demee euh, fële Guinée diggante xeet ak xeet boo demee Burkina Faso réew yi ci bëri ci dans la sous-région problème d'ethnicisme problème de de de de race loolu dafa posé wu kon nañu moytandiku yenn dérapage yi ça donne leçon aux autres je parle pas de Pape Cheikh peut-être il s'est il s'était trompé il s'est excusé maintenant ça donne leçon aux autres ñu bàyyi xel ñiy teg ci kanamu tale yi bu ñu xool seen taar ak seen rafet te warat na li